RFM matin suite ak seen gan euh, Amadou Ba bu Pastef. Euh, di wax ni rek bon c'est normal euh, pour tout parti politique nga am say activité politique ak réponse politique yoo xam ni war nga ko indi ci champ politique bi donc y a rien de plus normal euh, seulement ñoom euh, le livre bi ñu xam ni bind nañ ko ni président liggéey na wala liggéeyul xam nga électorat bi daf ko àtte lors de la présidentielle parce que présidentielle aussi loolu lay euh, loolu lay jariñ donc euh, li nga xam ne moo ci am solo du ñoom liñ ci bind on verra plus tard après euh, rapport ak mission d'enquête ak d'audit yeeg yëpp yi nga xamante ni dina génn ci kanam dinañ ko mën a comparer ak ñoom li ñu bind pour sénégalais yi mën a apprécier xam nga tey jii boo nee taux de chômage bi ñu fi fekk ndax la nouveau régime bi soog a ñëw dafa ko fi at donc tey jii kenn mënu ko askanale benn bilan donc difficulté yi nga xam ne par ailleurs ñoom ñu ngi koy dénoncé rapport enquête ak yooyu ceeg de wute na ak bilan itam xanaa non bokk la je dire il faut ñu am l'état réel euh, situation bi nga xam ni moom lañ fi fekk premier ministre bi ab dafa ni dañoo fekk ak un état en ruine <clears throat> bu ñu waxee loolu nga bëgg koo weddi am na firnde bu gën a yomb boo xam ni boo ko tegee sa bët boo tegee sa loxo di nga comprendre demal xool suñu dette la dette du pays bu ñu nee la am nga dette boo xam ni quatorze mille milliards la euh, daanaka duble na sa budget di dem da ngay comprendre ni en réalité. même yéen bi ngeen yegg seeg léegi euh, xëy na ci juróomi weer lay toll te yéen a ngi ci mille milliards ci lu ngeen leb ci dette itam fu ngeen jëm ak ñun kon. waaw mais xam nga dégg loolu la la la ñuy wax un état en ruine xam nga tey ku fekkoon xaalis ci compte yi doo ko doo ko doo dem di lebi. c'est-à-dire que yi nga li ngay li ngay question bi ñu waroon a poser mooy ñii lan lañ war a bàyyi comment cela se fait que ñu nga jël pouvoir bi au mois de d'avril nga fekk daanaka l'essentiel des budgets consommé nañ ko ba fekkoo fi xaalis nga obligé dem di lebi loolu kay mooy la preuve au contraire que ce pays mais mais mais li ngeen leb ba léegi waxu leen nit ñi aussi fii lañ koy yóbbu non wax nañu bien sûr que wax nañ ko xam nga eurobond yi ñu mujjee jël dañ lay wax ci lan lay dugg souvent ay bor yu egsi à maturité la ñu war ko fay loolu moo ci ëpp ak ay besoin de trésorerie yoo xamante ni dañ ni la kees yi fekkatuñ ko ci. parce que consommé nañ l' essentiel des budgets gis nga tout ce qui s' est euh, avant entre le premier janvier et le euh, bi ñuy élection présidentielle bi am. benn gabegie total moo fi am. consommer l'essentiel du budget loolu moom foo ngeen documenté ko itam. xam nga wax ko itam vraiment. non xam nga ki ngay wax président ban président président bu nekk bu doon sa sago. boo ñëwee keesu état bi da nga fi fekk suffisamment d' argent ba doo jar lebi parce que c' est pas import intéressant ngay leb mais da war a comprendre aussi bu ñu leen di wax xam nga li ñu documenté mooy qu'on est à presque quatorze mille milliards de dettes xam nga loolu kenn weddiw ko entre bor boo xam ni trois mille milliards nga fekkoon nga yóbbu ko ba quatorze mille milliards donc même si tu as fait des réalisations bu ñu ko rapporté dette bi la charge de la dette dafa étouffer suñu économie donc loolu ce sont des faits loo xam ni kenn du ko weddi ñu nee la am nañ bor 14000 milliards de mën nga ubbi loi de finance boo xam ni ñoom ñoo ko fi bàyyi nga xool dette bi charge de la dette ak nan la demee donc c'est un état ki nappa pas produit de richesse li mu def yëpp daf koo jëlee ci bor et on essaie de montrer aux gens que ni modèle économique boo xam ni lépp ci bor la c'est pas un modèle viable quand bien même gis nga ni euh, y a réalisation réalisations économie moo war a produire richesse mais pas dette et malheureusement modèle bi nga xam ne moom la Macky Sall bàyyi. léegi xaalis bi bu ko lebul woon lu ñuy nu ñuy defee li ñuy li ñu def nag ñoom. am ngeen ci pexeem. dañ ni la xam nga model bi lañ la wax baaxul. c'est un modèle boo xam ne état interventionniste nga am état mooy base économie dëkk bi. non yéen ban modèle ngeen gis ni moo baax. modèle bi mooy il faut nga créer économie boo xam ni mooy générer boppam ay revenu tey état li mu investir ci ay infrastructure la ko def. un tissu industriel inexistant au Sénégal infrastructure bi boo ko créer non seulement c'est pas rentable li nga ko lebee dafa cher ni nga ko defaree dafa cher c'est pas rentable ba pare bu infrastructure bi bu ñu ko mettre en exercice da ngay continuer di ko subventionner pour muy dox donc loolu da nga ubbi benn bor boo xam ni c'est permanent parce que benn infrastructure Macky Sall rentable. mais nee nga économie bi génère ay richesses dans la théorie quoi concrètement quoi concrètement mooy li la président wax fexe ba agriculture place bi mu nekk. place am ci PIB bi li nga xam ne moom mooy sunu richesse nationale ñu fexe nuñ ko dublee ba alal ji di jóge encore une fois ci agriculture ak transformation industrielle loolu mooy mooy mooy changement de modèle pas les infrastructures tey bu ñu leboon xaalis ñun dañ koy dugal ci agriculture mais doo defar ay infrastructures yoo xamante ni parfois nee naa la da nga koy defar ba pare tu oblige demal stade yi ñu defar ak infrastructure yi yi fi hérité amu ci benn benn benn boo xamante ni rentable na état bi da koy continuer di subventionner. tu toutes les infrastructures ne sont pas des infrastructures de rente. du question rente dëkk dafa war am yenn jumtukaay yi personne n'en doute mais dañ la bëgg wax modèle bi xam nga tey jii bu ñu nee ñu TER tout le monde vous dira ni TER bi xam kenn du ko dajji kenn du ko sànni on n'a pas le mais bu nee la woon à l'origine ña ko doon dénoncé qu'est-ce te ba pare mënta fay boppam chaque année tu es nga ci injecté waat xaalis pour structure bi mën a dox est-ce que loolu c'était un besoin impérieux pour le pays côté boobu lañ wax ni ñun on sort di modèle de financement bi économique bi Macky Sall teg mooy dem lebi xaalis det defar ay infrastructure jox ko ay entreprise privée ñu liggéey ko yóbbu bàyyi la subvention yi ñun model boobu lañ génn ni on retourne à l'agriculture assurer suñu sécurité suñ souveraineté alimentaire dem industrie bàyyi importer imp on importe jusqu'à importer ay bale modèle boobu la ñu dafay jeex on a identifié plus de deux mille six cent industries yoo xamante ni mën buñ ko mettoon au Sénégal am na yoo xam ne soxlawul haute technologie dootul jógee ci Chine dootu ko jógee muy ay bale ay rato ay pelle yooyu pourquoi ngay continuer di ko importer on est en deux mille vingt quatre ak puso ak voilà te l'unité de production cherul. waaye saa yéen a ngi wax rek. non ñun liñ ah, lay wax ni da ngay wax yow ndax xel nangu na ko xam tamit. pour le moment on ne peut pas dérouler parce que amaguñ sax ñun suñu loi de finance mais on vous dit modèle u Macky Sall mooy infrastructure ñun génn nañ ci on reprend comme si un état normal la mooy da ngay mesurer li ngay dundee boo paree nga defar sa industrie loolu mooy générer croissance mais agriculture ba ngay wax donte sax egguñu ci autosuffisance alimentaire nangu leen tam ni au moins am na ay jéego yu ñu fi teg non loolu encore une fois Macky Sall a beaucoup investi dans xam nga mais est-ce que lan la généré lan la généré engrais yoo xamante ni benn dañ koo détourné ci kii bi ay opérateur ñoo ko yore du yegg ci ci kii bi état bi di subventionné dépensé ay milliards en pure perte. non mbay mi moom Macky Sall dafa lajj Abdoulaye Wade échoué. mais ils on mis de l'argent mais ils ont mis de l'argent attention. c'est quand même extraordinaire quoi. mais bi chaîne bi lañ maîtriser wul. parce qu'ils ont laissé des gens ñu capter capter le la chaine di ci def lu neex. loolu moo tax di nga gis cent mille tracteurs boo duggee ci àll bi fekk ku yore kon ne yore sa sa kii di bay sa ileer di bay parce que yegsiwul ci paysan bi le modèle mooy l'État dome de l'argent subventionne ay nit jël ko détourné ko jaay ko donc yooyu yëpp question d'inefficacité la mais ñun la priorité moom laay wax mooy un développement endogène mooy à partir de l'agriculture nit ñi dellu ci mbay mi on essaie de diminuer sunu dépendance ci yenn produit yi wax nañ ko ci blé bi ak mburu mburu mi nga xam ni contrôlé woo ko su population di ko dundee te heure bu amee choc exogène yuuxu nga ci yow lay njëkk a metti Covid bi liñ ci waroon a jàng yëpp malheureusement jànguñu ko ci ñun on essaie de renverser quand même on ne peut pas dire que suñ programme ak ñoom li ñuy def bokk na. Mhm. Euh, euh, à propos de choc exogène euh, démb bu ma gisee Yacine Fall sax dama doon reetaan mu nekk ci Russie di wax ay blé mburu Euh, ba fa Macky demee di wax bile bi ngeen koy saboté yéen politiciens yi yéen neex quoi leen neex rek quoi ah fu ngeen féete rek am du noonu. non xam nga fi Macky jaar rek ngeen jaaraat quoi. non mu demee di wax ci Poutine affaire bële Yacine Fall démb ak Lavrov ca ko di waxi wax itam bëleeg mburu xam nga encore une fois. un gouvernement buy soog a ñëw da ngay pragmatique mais liñ la wax mooy ay directives claires moo am cette fois-ci. pour dindi dépendance boobu mais boo fekkee existant tu es obligé de faire avec l'existant loolu c'est la vérité tey jii mënoo fee saxal blé boo xamante ni dañ koy substituer produit dérivé pain ci 4 mois 6 mois mais xool leen trajectoire bi le changement de trajectoire qui est en train de se produire mais ISRA liggéey na ci lu lu am solo lu am solo mais bien sûr bien sûr am na même la kii fédération des boulangers Euh, dem foire ba je pense pour présenter toutes les possibilités. avec nos mhm. céréales locales campagne pour céréales locales yi. yi mhm. pour ñu xool comment on peut substituer à tout ça mais pour cela foog état interventionniste ci domaine boobu mais pas nga jël sa alal yépp dugal ko ci ay infrastructures xoolal d'autres modèles pour financer les infrastructures que l'endettement nga jox ko ay secteur privé ay société nationale plutôt. Euh, société étrangère suñu paree def seen bénéfice jël ko yóbbu nga continuer yow di subventionner ouvrage bi mu nekk un déficit permanent. Mhm. Euh, Amadou Ba ñu tàbbi nag ci euh, assemblée nationale ak euh, lañ fa gis démb session extraordinaire bi ñu ubbi commission war a liggéey ci projet de loi bi leen jomay yónnee ngir ñu dindi fi conseil économique social et environnemental ak au conseil des collectivités territoriales ñuy for ci bay ne. sa naataangoo député yi bokk ci bennoo ñoom du nu wote yëf yi gannaaw ñoom ñoo fa ëpp de xanaa euh, yëf yi du jàll wala am nga ci njortu rafet. mais de toute façon en toute logique le président de la république programme am lay appliqué et je pense que kenn mënul euh, duut baaraam président buy appliqué programme mooy loo xam ni daf ko annoncé woon. daf ko annoncé woon ni lii dama koy def léegi nag quest qui se passe. yow war ngaa defar loi de finance jàpp nga ni il nous faut des mesures d'économie petite économie amul amul nga ni xaaral ma supprimer ñaar yoo xamante ni tey jii suñ doon defar loi de finance boo leen ci boolee tu es obligé nga defaat révision constitutionnelle après loi de finance defaat loi de finance rectificative pour dindi leen loolu yëpp day compliqué mu ne ginnaaw programme am la et montrer la responsabilité de l'Assemblée nationale ñoom xam nañ ni y président élu légitimité bi xam nañ fan la nekk je pense que voter loo xam ni c'est dans son programme quel est l'intérêt pour ñoom ñu bloquer ko. mais ñoom aussi euh, légitime nañ. non kenn waxul légitime ñu non kenn waxul légitime ñu mais xam nga tey jii boo gisee ñu def ay mécanismes de dissolution ak yooyu da lii moo taxoon lii moo tax président de la république bu ñu nommé suffrage universel mu am élection la plus récente bu ñuy seet légitimité foofu lañ koy seet sinon moom du appliquer mukk programme ma ah. il faut mu dem jëli Benno Bokk Yaakaar pour am jàmm. donc demandé na ko député yi ñoo war a jël seen responsabilité parce que quelles sont institutions yooyu c' est pas seulement du question concept bi moo posé problème da ngay xool nan lañ leen créer c' est des institutions non démocratiques benn pléthorique ñaar parce que conseil économique et social 120 lañ au au conseil euh, collectivités yi 150 lañ boo xoolee seen mode de nomination c' est pas du tout démocratique boo demee au conseil collectivité président mooy nommé 70 sur les 150 ba pare mooy nommé le président heure bu ko neexee révoqué ko nga dem 16 pareil moom mooy nommé donc nga gis ni institution yi démocratique gul deuxièmement joxuñu leen sax dayo bi ñu waroon a am. dayo moo ne ñu ngi liggéey di def defi rapport. bu ñu doon def rapport jëlal benn cas da ngay jël au conseil collectivité territoriale ñaata at a nii waxuma weer. agent collectivités yi nekk en grève ñaata at est-ce que yëg nga seen implication ci difficulté yi nga xam ni commune yi am nañu. foofu aussi am ngeen ci ki am ci responsable ndax li ngeen yéen leen doon jàppale bi ngeen nekkee opposition euh, ñëw ci bopp nguur gi rek fàtte leen. non non non non non non pas ci loolu. dañu fee fekk ab situation du jàppale leen ñoom dañuy grève c'est-à-dire li ma la bëgg a wax foofu yow sentir nga bi ñu créé xam nga au conseil collectivité ñu ngi ko créé 2016. 2016 lañ ko créé depuis 2016 lan nga sentir ni conseil boobu amal na ko utilité ci collectivité yi nga jël mission yi nga xam ne moom la ko loi bi jox parce que joxuñu leen dayo même su bëggoon agir mënul agir xam nga lu ñu. saa bu ñu toppee logique boobu assemblée bi sax mën nañ nañu amalul njariñ askan wi. non <laughs> ah, ah, c'est normal. Ah, du une réforme non assemblée nationale dañ ko war a réformer donc on supprime. pas pour supprimer kese mais dañ leen war a parce que dayo bi ñu waroon am amuñu ko te ba pare dafa bëri ay redondance xoolal au conseil collectivité territoriale am na bëri ki démb la président dindi conseil national du dialogue des territoires boo xam ne ñoom ñoom ñaar ñoo bokk même mission moom lañ njëkk a créé au conseil ñoom ñaar ñoo bokk même mission mooy bu Benoît Sambou doon diriger les mêmes mission quasiment nga créé ko bii jox ko budget ñaa nga milliard nga jël aux collectivités teg fi avec les mêmes missions redondance yooyu redondance yooyu ak mille millefeuille administratif institutionnel moo amatul cohérence conseil économique et social lu am solo la mais pourvu que nga jox leen dayoo nga limiter le nombre jox leen plus d'efficacité loolu moom mooy l'idée sous-jacente mais c'est pas juste une pure affaire de stratégie politique kon da ngeen euh, fas yéene indiwaat leneen la nga xamante ne moom mooy euh, def la nga xamante ne moom la liggéey di kuréel yooyu doon def. non non non président annoncé wul loolu sinon il l'aurait hmm, annoncé. annoncé ko waaye doo ko def de. non hmm, kooku xam nga c'est le jeu des politiques sénégalais. non d'accord xam nga euh, Abdoulaye Wade bi mu bi mu faloo dindi na fi ay fi ay ay mbir indiwaat. bien sûr lu ko gën a grave Macky def la même chose. mën nga yéen itam yéen itam foofu rek ngeen jëm. waaw d'accord bon. xam nga lan ngeen lan ngeen bëgg a indi wax ñu yow noo gisee dañoo war a indiwaat Sénat xanaa. déedéet dama ni la man li ma la mën a wax mooy. Sénat est-ce que gis nga loolu yow. <coughs> déggoo ma xanaa c'est ban du question bi may intéressé mooy nga expliquer pourquoi décision bi am mooy c'était déjà dans le programme dañ ko annoncé wax naa la ne institution yi à ce jour xam nga ils ont coûté cent cinquante milliards depuis 2012 ils ont coûté cent cinquante milliards depuis 2012. mais seulement programme bi li ci li ci ne bëri na te defagu leen ko mais. ak ay la lii nee naa la. mais am li nga xamante ne mën na nekk. sans pour autant ñu jaar dindi nañ conseil national du dialogue des territoires xam nga lu tax. parce que du woon loi moo ko créé. c'était pas difficile nga dindi ko coow amu ci yëgu leen ko sax dindi nañ ko sax te yëgu leen ñoo ko njëkk a wax yëgu nañ ko kay quand je dis amul euh, kii médiatique je comprends effet médiatique bi nga mm. xam ne am na ko. donc moom la président il est en de rationaliser booku waaw nag caisse caisse caisse noire gi président yor moom nu ngeen koy def te ngeen digge woon ni Sonko waxoon dañ ko fiy dindi. caisse noire du président caisse noire premier ministre ak yeneen caisse noire yi assemblée nationale ak yooyu. gis nga loolu tam <laughs> buñ ko ko dajalee dina duunte sëñ bi. dina duunte nee naa la gis nga politique rationalisation bi dégg nga ko bërki démb président ni premier ministre ni il va organiser benn centrale d'achat. boo xam ni mooy. ça c'est une idée. xam nañ ni loolu. tey ne pourquoi mosuñu koo def da defoon ñun ñoo créé idée bi c'est que y avait jamais eu de volonté de rationaliser nee na loolu lépp dañuy teg def ko benn centrale d'achat boo xam ne mooy jëndal toute l'administration publique boo demee Canada loolu moo fa am donc yàq bi bëri na mais ñoom ñu gis ni lii c'est une affaire politique on a on a un état hérité d'un état surendetté état bu surendetté la ñu hérité donc y a pas de petite économie et puis on a une politique xaalis bi bu ñu ko jëlee fu ñu koy dugal dañ tey jii ñoom ñu ngi wax bëriwul du dara mais nee naa la. depuis 2012 da nga koo fenetal de. non fenetalu ko. kooku di ci kooku nee naa la. li ci premier ministre wax ak président. Touré soppeeku rek bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi nga xamante ne président. yëkki woon na ko bi muy dajeeg ay taskatu xibaar. ca Palais ba mm-hmm. Touré changé rek. non du tur yi mooy changé xam nga fonds yooyu dafa bëri ay façon fonds yi nga xam ne moom moo nekk présidence. donc li nga xam ne moom mooy fonds politique en tant que mooy am yi. yoo xamante ni président c'est à sa discrétion kenn munu koo contrôler kenn munul xam fan la koy dugal. ñu ne la à minima na am commission boo xam ni ñett même bu doon ñett ak ñeenti nit kese la dans la république ñu mën a saytu président fan lay jëlee dugal xaalis bi. xaalis bu nekk pare daal bëri na te Omar Diagne lànk ne du ci sàkk dalal ganu sëñ Mountakha yi du noonu laa. non loolu moom je pense que ni euh, sëñ Bass Abdou Khadre ñu ngi koy ziar bi mu koy leeral man maa ngi toog. mu expliquer ni donc affaire boobu jógewul sax ci ñoom donc on aime créer des polémiques. Bon, le, a évolué hein. sëñ Bass la question a évolué li mu wax dafa leer moom man moom mooy porte-parole di xalif moom moo yore signature. nee na demande bi émané wul ci moom ba mu koy wax man maa ngi toog ak ministre du tourisme. bon bon donc loolu polémique bi fa la waroon a yem. waaw baax na ñi jiite kii bi euh, ñi jiite ay commission xanaa amuñu responsabilité kon. kooku da nga koy laaj en interne moom moo xam nga moom kenn waxloo ko. ci loolu ngeen ci loolu daal ngeen di sukkandiku yéen daal xaar du sukkandiku. c'est pas le président defal ndànk. du gouvernement bi moo ko demandé mais ki tontu moom Bas sëñ Bas la tontu. ndax dafa ne président commission d' organisation grand màggal. Touba xam nga tam xam nga man bugguma dugg ci. Ah. organisation màggal yaa ngi dugg ci li la arrangé li la arrangé woon nga bëgg ko. le responsable bi ñu désigné. le responsable bi ñu désigné moom nee na cette demande n'émane pas te moom lépp loo xam ne signé wu ko. bu kenn jàpp ni loolu engagé na la communauté murid ak la xalif. ñu ngi lay gërëm bu baax euh, Amadou Ba ci waxtaan wi amoon na solo jërëjëf Amadou Ba bu Pastef euh, nekk député euh, Yewwi jërëjëf Georges jërëjëf Dieynaba jërëjëf Babacar Fall gërëm bu baax aussi Georges Détié Diop ak sa invité Amadou Ba donc nekk